matale nga ko jërëjëf yàlla yàlla suñu borom mottali lay doon sam ndam mottali sag ndaw te li nga yéene ci penc mi yaag ñi nga àndal mu jëw ñu xiddama yépp suñu borom mott leen seen yéen ci kër gi xanaa kon mu mel ni liggéey bi mat na li war a jot jot na li ci des mooy delloo kàddu gi ki ko moom kii kilifa kilifa yi di suñu kilifa ñun ñëpp muy sëriñ Cheikh Bintou Mbacké. bismillaahi rahmaani salaatu wa salaam ala asrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala sairil anbiyai wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajmain wa an taxfir lana ma mada wa taxfasana fi ma baqiya salaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu yëkkati kaddu yi ci turu jëmm ju tedd ji nga xam ni mooy kilifa jotaay bi di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke moom sëriñ Modou ci jëwriñ ji nga xam ni li ëpp ci nawbe yi aju ci sëriñ Modou Jalla Sow moom mii lañu yaakaar di sëriñ Mouhamadou Sow sëriñ Mouhamadou moom i sëriñ Cheikh Bintu moom ñii taw di jëwriñam di buntam ci sëriñ Touba kàddu mi yëkkati ci turam lañ ko yëkkatee mu ñëw fi nag ci jëmmi boppam mhm. ci relation boppam ak njabootu Serigne Modou Bara Sow ci boole bu ko Serigne Modou Xabbaan boole woon ak njabootu Serigne Modou Bara Sow ci jamonoy Serigne Modou Xabbaan mu téye loola di ko dundal di ko rafetal ba xoli law bi yëpp xol boo xar fekk ca jëmmi Serigne Cheikh Bintou Mbacké nii kon ñëw na fa ngir jëmmi boppam ak relation boppam waaye mu ñëw fi ngir jëmmi ki yaa ki nga xam ne mooy kilifa kër Cheikh Ahmadou Ndoumbé Xaban di Serigne Ibrahima Mbacké mi nga xam ne lu muy dox ci ndigalam ci bëggam la koy dox waaye mu ñëw fi ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke mi nga xam ni jotaay bi ku ne xam ne ni bokk na ci jotaay yi murit yi jotaay yi kër sëriñ Tuubaa yi te jotaay kër sëriñ Tuubaa bu nekk sëriñ Muntaxa tey mooy kilifa ga sëriñ Cheikh Amadou Mbàkke mi ñëw ci turu sëriñ Muntaxa ci turu njabootu sëriñ Tuubaa gépp bi muy ñëw nag mu ànd ak rakkam di imaam sëriñ Abbas Mbàkke mi nga xam ni fee ci dënd yi tey moom la sëriñ bi jiital muy taxawu njaboot ga ci wàllu lislaam di imaam ji ànd ak doomam sëriñ Ousmane Mbakke ànd ak doomam sëriñ Xabbaan Mbakke ànd ak ñun nii di ab taalibeem di Moodu Xari Mbakke waaye mu ànd ak magi taalibe yi nga xam ne ñoo nekk fii ci biir Njaaréem di sëriñ Xabbaan Njaay di sëriñ Maam Góor Jeng ak sëriñ Ibrahima Diop ak mboolem kilifa yi nekk jaareem ñëpp Serigne Cheikh ni leen lu ngeen jàpp da ngeen ko bàyyi te ñëw gunge ma ci sama bisu bopp boobu yi muy bis boo xam ne jëmbal na ko lool gëddal na ko lool Serigne Abbas mi mbokk nga xam ne moom la àndal rek yoon wi dafa baaxoo lépp loo xam ne ab bi am na ko di ko daloo lam cay bëgg mu ko cay gën a mooy mu woo ab sëriñam mu defal ko ci ñaan ubbil ko ko léemul ko ko loolu lu yoonu mil baaxoo loolu moo amoon ci jumaay Dendeye bi ñu koy ubbi sëriñ Sidi Moxtaar yebal fa ndawam lii bi ñu waree ubbi liggéey bii sëriñ Cheikh mii ñëw ci turu sëriñ Muntaxa ak turu sëriñ Ibrahima ànd ak sëriñ Abbas mi nga xam ni njabootu Cheikh Modou Xabal la bokk ngir ni ma ko waxee ku ci nekk loolu ubbi rek boo sañoon sab sëriñ ñëw ubbi la ko loolu moo waral sëriñ Abbas ñëw nekk ca kanam waaye bu loolu weesoo sëriñ Seex ne jëmm ji nga xam ne moo fi nekkoon démb ak bërki démb di sëriñ Basiiru Jaw mi ngi koy sant sëriñ Basiiru Jaw mi ngi koy sant mi ngi koy gërëm ci wuutu gi mu ko wuutu fii nga xam ni bu fi nekkutoon ku mel ni moom nekku fi ku mën a taxawu liggéey bi moom Serigne Cheikh mooy tànn kenn ci njabootam mu ñëw féete bi ba mu ñëw si boppam kon nag nekk gi fi nekk di jiite njaboot di leen jàngal di leen teete waxtu wu nekk loola Serigne Cheikh mi ngi fàttali cantam ak ngërëmu di leen ko gën a dénkaat bu baax ngeen jox ko wàccuwaay bu baax xam ni jëm ndawam la léppam la tey li bëri ci njabootu Cheikh Moudou Xaban gi moo xam sët la wala doom ci daaram jooju fa la ñu jànge alxuraan ba mokkal kon nag na ngeen xam ni bu ñëwutoon lenn lu bokk ci sëriñ Xabbaan ñëwutoon moom mu def fi taxawaay bi dana ko mat nu mu gën a rafete waaye bu gën gee sëriñ Seex ñëw ngir gën a jëmmal bis bi gën ko dara jàll loolu yi kaddu la yoo xam ne sëriñ bi yónni nañu ko ci seen diggante ak sëriñ Bassirou Diaw moom mi nga xam ni ndaw lu mat sëkk la alxuraan kese la xam-xam kese la diine kese la ak taaliba kese la sëriñ baa ngi leen koy bu baax a baax Serigne Cheikh nee na na àdduna bépp xam ne jëwriñam jii di Serigne Mouhamadou Sow sant na ko gërëm na ko jox na ko boppam nangul na ko bañu na ko lenn te wuutu na ko foo xam ni fi mu yegg Serigne Cheikh day nee na moog yàlla rek ñoo ko xam ndax bis bii dafa am lu mu yàlla lu mu yàgg bëgg mu ni muy muy demee ni muy mbooloo mépp nekk benn nekk benn baas ñu di fa daje di waxtaan di fàttaliku jëmm ji nga xam ne moo waral lépp taxawaay ba rafet bi ci def ba nga xam ne fu ci nekk daanañ fa seen baas tey mu mel ni lépp nekk benn baas loolu Serigne Cheikh yëg na ko bu baax a baax Serigne Mouhamadou Sow loolu li nga xam ne ci sa ay gii la amee Serigne Cheikh day sant na ci gërëm na ci waaye santal yàlla bu baax ndax jombul ñi la jiitoo ñépp bëggoon nañ ko waaye ci yow la ko yàlla dogale sa dog sa dëkku sa bañ soxlaal kenn dara ba nga xam ni lépp luñ la jox nga def ci liggéeyub sëriñ tubaab bi jaarale ko ci kër Cheikh Modou Gallo Sow lu la joxul nga toog ak sa ngor lu fi ñëw nga bokk ko bokk julli ji bokk taalibe yi lu lu ma wax ci suba ba léegi ay kàddu jib na fi yoo xam ne ay dëkkandoo lañ di ko wax loolu sëriñ Cheikh siggi na ci dëgg na ci ndax bu ñëwoon fekk bi beneen taxawaay beneen dox yi dana sëgg waaye siggil nga ko sagal nga ko kër sëriñ Mouhamadou Sow sëriñ baa ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanalit suñu borom gën a yàggal taxawaay bi nga liggéey bii nga yéene ci keppaaru sëriñ Modou Gala Sow suñu borom defal la ci ndam bu baax a baax a baax sëriñ Cheikh yi nee na mi ngi dénk jabootu law ba yëpp mboolem yaakaar sëriñ Modou Gala Sow nit ki amul lu amul lu dul këram amul lu ab àndam kii leen yàlla boole di Serigne Modou Galas Serigne Mamadou saw mii nañ ko joxaat seen bopp jëbbal ko seen bopp gën koo doyloo ni ñu ko defee gën koo wóolu ni ñu ko defee gën koo yaakaar ni ñu ko defee te lu ñuy jëf ci Serigne Touba ñu gëm ni bu ñu ko jaaralee ci jëmmam ji loola na leen wóor ne teg nañ ko ci loxo Serigne Modou Galas Sow teg nañ ko ci loxo Cheikh Modou Bunda Xabaar kon nag ñu ngi soññaa ñëpp ñu góorgóorlu ci bu baax a baax ndax nit ki kat amul lu dul àndam te sëriñ bi bi muy sàkk ay seex di sàkk ay bunt dem ba xam ne ñëpp mënatuñu agsi ci moom mu wut ay bunt fenn fu ci nekk ñam leen booleel ñu fa gën a jige mën a jaar foofu mën a yegg loola moo war a jumaa jii mënoon naa nekk benn bunt waaye yetti bunt la ci soow ci gànnaar ci saalum wet gu ne ña fa féete buñ fa jógee mën faa jaar muy seen bunt mu gën a jige ci ñoom kii la leen yàlla booleel mooy seen buntu ci sëñ Modou Galasso ci sëñ ma ndumbe kon bàyyi wàll leen xel bu baax ànd ak moom ci liggéeyu Serigne Touba bii ba li sëriñ Modou Galasso bëggoon ci kër gi loolu suñu borom defal leen ci dara bu loolu weesoo monsieur le gouverneur jël na fi kàddu sëriñ Cheikh nee na mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm yaa fi toogal président de la république suñu la tuddee yóbbaale na mboolem ku yëngu ci wàllu administratif te bi taxawaay bu rafet bi ngeen def ci barab bii ak yëg-yëg ak gëdd gi ngeen ko jox ak yitte ji sëriñ bi nee na xam leen ni moom ngeen ko defal ndax nit ki ak njabootam loo ca def mu am te yëg-yëg loo ko defit mu am te yëg-yëg defal ngeen nag su tey kon sëriñ baa ngi leen di sant mu ngi leen di gërëm lii ñu leen dénk yàlla leen ci yàlla gën leen defal ndam ñu gën leen ci defal sutura ba fa ngeen ko bëgg a yeggale ci euh, bëgg-bëggu président de la République yàlla dafa leen ci ndam lu kawe seen njort te lépp jël nekk ci alhamdulilahi rabbil alamin kilifa yi nga xam ni teew nañ ci muy sëti Serigne Touba muy seexi Serigne Touba muy ay kilifa diine yu aju ci yoonu murid yu ci ajuwul yëpp bëggu ñoo tudd tur di juum buñ ca duggee rek daan juum kilifa yi yëpp Serigne baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm ndax kenn ku ci nekk ñëw fi kenn rek ku fi teewoon rek dana mën a taxaw taxawaayu kilifa jotaay bi kon ñëpp bu ñëwee loolu Serigne seex mu ngi leen jotal ak cant bu baax a baax di ñëw nag ci ñetti tomb yi nga xam ne rek moom la Serigne bii dénkaanee barab bu mel nii jotaay bu mel nii bis bu mel nii bu fa aw mbooloo dajee te defuñu benn jàngat nañu xam ni am na lu manqué ci ñoom dana baax ñu def jàngat bu baax jàngat bi ne li ci jiitu balaa ñu ñëw ci borom bis bi sëriñ bi ne def nañ fi jumaa bu mu nekk meuble buñ ko inauguré mu nekk meuble képp koo xam ni jege na fii waxtu julli juróom bu jotee loo jàpp nañ ko bàyyi ñëw taaral barab bi ñu àndandoo bi fi julli bu àjjuma jotee fu waay mën a nekk te nga xam ni fii moo la gën a jege loo jàpp nga bàyyi ko ñu ñëw taaral ko jëmmal ko loola mooy tax def gi ñu ko fi def mu taar ba dëkk dëkk mën a fay waaye bu mu doon lu ñu liggéey rek indi gën a ko bàyyi ko fi ñu fay séen ñaari nit ak ñetti nit nañ ci bàyyi xel bu baax njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekk. tout tànk yi nañ leen jël dugal leen ci daara alxuraan yi ñu jàng alxuraan jàng xam-xam ba lépp lu kër gi def bu ñu gestoo gis ñu ñu doy ñu ko mën def niñ ko mën a niñ ko bëggee ci wàllu diine ci wàllu adduna loolu nañ ci bàyyi xel bi nee na nañu ni dafa am lu tax suñu borom bind nu andi ñu fi te nit bu toogee ci kaw nga toog ci suuf muy wax nga ni tekk di ko déglu soo yoree addiyee jox ko boo juree doom tudde ko bu la yónnee nga dem te mën na laa mag am na ko tax kenn la muy Seexul Xadiim lay gën nag mooy ku kii la topp jox la boppam lim la toppe nga fexe ba bu ëllëgee du am rëccu ci lim la toppee woon lay tax du am rëccu nag mooy nga joxoon ko bëgg-bëggu Serigne Touba Serigne Touba day bëgg-bëggam ba leen rek la woon nuy bàyyi xel la borom daalee waxoon law kaana za lubbin lay xam ne annahu maa kaana unje baatilin aw handat kala wala li xuldi fi dunia wala li yakun aqsa aysi aysu rab bal munsaun fi l ardi la mustawtinun lakin li yaxburuna wa saakal mawhid doomu aadama bu xel woon dana xam ne andiwuñ ko fi ngir ay caaxaan andiwuñ ko fi ngir ay neen dañ ko fi andi am luñ ko sant diir bu gàtt suñu borom jëlee ko fi mu wuy ji ko bu te bu ëllëgee wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati fardan borom ku nekk danaa wéete yow ba nga defe ne yow laa bindoon nañu bàyyi xel ni ñëwun fi ngir ay caaxaan ñëwun fi ay ngir ay neen ñëwun fi ngir am pox suñu borom nee na bindu ma leen ngir am pox daf noo bind ngir ñu wéetal yàlla jaamu fu ñu tëddee Serigne Touba dañ ñuy rëcc fu ñu tëddee Maam Alaaji Maalik dañ ñuy rëcc la nekkoon ba am loola weesu lu dul jox seen lépp yàlla di jaamu yàlla di ko wéetal di daw ay tereem hmm. kon nag bu ñu bëggee topp ci tànk ku tedd koo kii ba yegg ci dëkk ba mu egg topp tànk ba dugg ci dëkk ba topp tànk ba dugg kër ga topp tànk ba dugg ci néeg ba fekk ko fa lam nekkoon nañ ca nekk lam daan dox ñu cay dox lam bëggoon ñu bëgg ko lam fegoon musu jaam soxla ñu wan ko ginnaaw hmm. sëriñ bi nee na nañu jaamu yàlla te fonk ko wa si xalaqtu jinna wal insa illaa liya'buduun sëriñ Tuubaa baax na ku yaakaar sëriñ Tuubaa dem aljana sëriñ Tuubaa borom ngëneel la waaye fal sa diggante ak sa borom sunu borom xeriñam yegg na ci boo faatoo mën naa jël Serigne Touba yóbbu ko gannaaw Casamance mu yóbbu la gannaaw Ndakaaru bële ngeen gis lu ci bëgg a mën na ko def kon bu ñu nax suñu bopp moom Seex Xaadim moo ni tallaahi lay si yan foo sax saxa daal hinda oluram si xayru daal gin naan nit ki dara du ko jare ci baax na lu am njub nit ki day waslu ak sabab lu góorgóorlu def lim man ak lu mënul lu manqué Serigne tubaab mottali ko dañ ci bàyyi xel bu baax ba mu nekkee Ceyeen ba bëgg a ñëw njaareem gii dafa wax sëriñ Maxtaar Penda ni ko bu timisee nga dajaleen ma fare yi damay waxtaanu ñoom dañuy bëgg a dellu réew mi gee jot mu ne ko ndax fere yëpp dajaleen mu ne ko mbàcc li ëpp dajaleen mu ne ko xaaka saa dama leen bëgg a dénk lenn day juróom benn ngi ni ku ko bëgg na ngay taxaw juróom benn ku bëgg a jige yàlla na ngay jàng alxuraanul karim ku bëgg a mucc ci mbëggalum bàmmeel na nga bëri bëri looy julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ku bëgg am te doo ñàkk loo am na ko jox yàlla ku bëgg a mucc na ngay moytu tooñ ndax kuy tooñ mënut a mucc ci kenn mënu koo buusal ku bëgg a noppalu na ngay moytu fayu kuy def fu la xuree nga fayu doo noppalu ci kenn mënu laa noppal ku bëgg yi ànd ndoo na ngay jaar ci aw yoon dinaa leen xamal kat yaar fi nekk muy aw yoon aku ñal mm-hmm. koo gisu ci yoon wa nag nga ci ñal wa aw ñal nag laa leen bëgg a xamal mooy lan ñu ne tekk di ko dëgg mu ne aw ñal mooy loo xam ne boo ci jaaree dégg mën na laa jam pakk mën na laa fen doo for dara te loo réer lay kenn du ko for di la ko yëg doo dab kenn ba mën laa yóbbaale kenn du la dab ba di la yóbbaale mën ngaa dox ba romb ab dëkk aw aw mar mën naa rey ci yoonam da ngaa jaar ci ñal kon jaar leen ci yoon ndax xam ngeen lu tax ma di leen digal lu baax fu ma toll di leen tere lu bon ñu ne ko mbàkke boo ñu ko baaxee lu mu ne leen bu ngeen nekkee ci lu baax li ngeen war a nekk musiba lu mu leen jege jege amu ci yéen soxla taxu leen koo jug kon sax leen ci lu baax. dëgg la nañu xel ndénkaane Serigne Touba yooyu nit ñëw na ci moom ne ko mbàkke man de damaa jaaxle. mu ne ko loola jaaxal mu ne ko damaa ñàkk sama ndey ñàkk sama baay ñàkk sama nijaay hmm. mu ne ko nga bëgg ci lan mu ne ko xanaa ma def la ngay sama ndey di sama baay di sama nijaay mu ne ko bu dee loolu la jërul toog kaay ma diggale boo demee na nga def jaamu yàlla muy sa baay hmm. nga def liggéey muy sa ndey nga def doylu muy sa nijaay foo mën a nekk doo wet dinaa la wetti li tàllal la mu ñaana la mu tàllal mu ne ko tëf la mu tedd wëlbati ko dem wallay sa bëri sëñ Mbàkke Maaram njàngalem moom nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax génn góor nee na tooñ waralul ay duma ñu ne ko luy tooñ waralul ay duma ñu ne ko luy waral ay duma mu ne ñàkk ku la làq mooy waral ay duma <laughs> kon fexe ba am ku la làq ndax ab xalekat mën naa rom mag ni ko tir aw saaga mag ma fàq ya daw wuti ko bëgg koo dóor mag mu laxasu ci meneen mag kooku ne ko tin ma ci mu bàyyi ko daa am ko ko làq kon fexe ba sëriñ bi làq la loolu looy dox na sa digganteeg sëriñ bi ñu bàyyi ci xel bu baax bis bii nag waxuma la lawbe yi de waaye jullit bu nekk war na ci jàngat ñett jikko yoo xam ni woon sëñ Modou Gala Sow cay ñetti jikko yu mat a bàyyi xel jëmm ju gën a tabe sëñ Modou Galaw Sow yàlla sa ko jëmm ju ëpp itte sëñ Modou Galaw Sow yàlla sa ko jëmm gën a nangoo liggéey sëñ Modou Sow Galaw Sow yàlla sa ko yett yooyu bi dara du dara amagul dara lii lawbe yi def la doon def topp marché yi di liggéey di daan doole guddi ak bëccëg kenn mësu koo man ci aw daan doolem ak dund ñàqam lu tax moo gënoon a tabe histoire xam na ni su ma masaan liggéey ba bëccëg jot képp ku mu nekkal ci keppaar ñëpp moo leen di añaaleel mooy làmb poosam jënd añ képp kuy law ba ak ku dul law ba di liggéey di yaxante ni moom moo lay añaaleel daanañ ko sax yow lii wax mënu am dara ndax loo am defaat ko ci nit ñi amoon na lu taxaw lu tax ma ne moo ëpp itte ku ne xam na ne lawbe lu jiitu sëñ Modou a Sow nekku ñu woon ci rang bi nga xam ne mooy bi gën a kawe bi gën a bàyyi xel bi mu ñëwee nag am beneen itte bu bokkut ak doon taalibe simple doon jaaykat simple doon borom alal simple mu am tey yegg ci yàlla bi Cheikh Amadou Ndoumbé Xaban jox ko boppam di ko tërbiyee di ko liggéeyal di liggéey di xattili aw nitam di liggéey di joxe addiya ba Cheikh Modou Xabbaan jàpp Cheikh Modou Mbé jàpp ci loxoom yóbbu ko ci Cheikh Xadim mu ne ko gërëm naa ko sant naa ko sëñ Modou mu ne ko gees ne ko Ahmadou santal yàlla su ma la gërëmee Serigne Touba gërëm la gëmal ni Rasulullah gërëm na yàlla gërëm na ñeenti gërëm yépp làq nga ko mu dal ko jox ko ndigal ne ko demal ca soow dëkk ba nga toog xaar fa yàlla bi mu fi ñëwee fii ay tilli ak i bukki ak i ndegment ak i garab kese ñoo ko fi wóoroon ñépp ñu fof na sànq topp na meloo moom nitam ba mu demee ba soxlaatu ko sànni na ko ca àll ba koom-koom bi yenu région Diourbel tey mu ngi ci suufu seeseen si dëgg la waay isinu domb bi mi ngi ci suufu seeseen gendarmerie nationale bi nga xam ne moo yor sécurité mënut a ñàkk ci askan mi ngi ci suufu seeseen jàngukaay bi gën a mag nga xam ne jàng ci la ñuy sukkandiku ba génn ba tabax réew mi ngi ci suufu seeseen gaaru ceer bii waral dem ak dikk di jur koom-koom bu mag mi ngi ci suufu seeseen kon demal xaar fa yàlla toog na xaar na fi yàlla waaye lépp fekk na ko fi itteem ju rey jooju nag moo ko may tey lu law ba mën a am ci kaw suuf ay itaas na nga gëm ni Cheikh Modou Gallo Sow moo la ko may boo ko yëgee boo ko yëgul kon bàyyiwaat leen xel ci am itte ci seen diggante ak seen borom ci am itte ci seen diggante ak Serigne Touba waaye ngeen bàyyi xel ci ni tabe loo am bokk ko nit ñi taxut a jeexal bu doon tax a jeexal garab bu ruusee dootu amaat meññet ngeen bàyyi xel ni nangoo liggéey lu mat a bàyyi xel la kooku moom yéen a nga ci woon yéen law bay waaye ñu gën ci bàyyi xel bu baax a baax. dëgg la waay. kon loolu di jàngat boo xam ni bu ñu war a bàyyi xel la ci sëriñ Modou Kara Sow moom yi di jeexale samay kàddu nag ci bu ñuy dénkaane ñu bàyyiwaat xel sëriñ Touba fonkaat jàppaat lenn moo tax. Ah. sëriñ Touba du naxe. te Serigne Touba lu mu xas tàllal ñaari loxoom yu tedd yi ñaan ko suñu borom lu yàlla dogal bu noppi la du wax mukk lu yàlla dugalu ci moom. cey te li mu wax li ñëwagul moo gën a wér li wees. la ilaha sëñ Modou Moustapha nee ah. bi ma téye di ko naan wóor ma ne li kafe la ma sëñ Bamba wax te ñëwagul laa gën a gëm gën koo wóolu ci lii ma téye ni kafe la. dafa bind ay mbind yoo xam ba mu koy bind kenn gisu ko jamonoy dox ban gis ko waaw toog na fa tuubaa wéeru ci dëgg sang sax newul ci tuubaa ay néegi ñax sàkk ay dégg ay sàmm mu naan waccal binaa iya binaa xilmi waxamalin bi sunnatin wa xilmi booba mi ngi rukk concom ci miiru jumaa ji defal ma sama tabax bii muy tabaxu xam-xam muy tabaxu jëfe booba sang bu baax taxawul Touba jamono dox ba Cheikh Mouhamadou Fadel inauguré jumaay Touba jiite ca kanam xutba mbooloo mi kañ la ko wax ak kañ la sotti Cheikhul Khadim jël na xalimaam ni bil Moustapha lii banal xuduusu madrasatan biha yasulul asa wal jahl wal kabadu ci darajey Mustafa alxuduus tabaxal na ma université boo xam ni ci université boo université boobu dana dañal bépp lor dana dañal bépp réer dana dañal bépp coono Sëriñ Tuubaa wax na loolu yow ngay dox njaaram doo gis université bu mu bu mu tabax bu moom ngay dox Tuubaa doo ko gis suuf sëpp ngay dox doo ko gis tam ni yàlla tabaxal na ko lu tabax waxul dana ma ko tabaxal daf ne tabaxal na ma ko te yow doo ci teg sa bët yaa quelque chose li ko waral lenn la dafa am waxtu ak ku ko war a def waxtu wa jot na ka ko war a def si na muy Muntaqa ah, yàlla na fi yàgg amiin léppam dam noonu la mel lu mu wax rek dana ñëw ci loolu nag tubaab bi dafa xamoon Serigne Touba ni ñuy gise xasiida yi di ko liir noonu la tubaab yi doon liire xasiida yi sëriñ Tuubaa yi biñ ko jémbalee ba tële pour jeexal xamal leen rek mbirum sëriñ Tuubaa lu sotti ba pare la ci histoire boobu laay tënkee samay waxtaan hmm. dafa bind ci xasiidam gu wax si ndir yi ni wax fas li yàlla gis suru faara xanin fil xarab laa tur yam daxara yàllaaw musalal sama jëmm ju tedd ji musalal sama jëmm ji ci biir bàmmeel musalal sama jëmm ji ci biir bàmmeel loolu mooy lépp luy lore ci suuf ngeen baal ma ci kàddu gu kàddu gi ak jëmm ju tedd ji luy nuru sax luy nuru suuf amu ci lenn loo xam ni lu mën a ayibal jëmm jooju la lu mu ñaan la ba suñu borom may ko bi tubaab yi gisee loolu xam ni kii du sensé lu mu yàgg-yàgg ci suuf du soppi ko ñu tëral benn programme jéemal nañ ko mënu luñ ko dara ci histoire moom lañ gis ku tubaab mës a jël yóbbu ko samaane ijajin mënu luñ ko tus ñu delloo su ko ci biir boppam di ko xool mu di leen xool ba yàlla moom ku tubaab mës a jël rek say bokk am nañ ci yow loola naqari dëgg la waay bi ñu demee ba xam ne mënu luñ ko dara ñu tëral benn programme nan toog dégloo waxtu ko yàlla moome ñu fekk fañ ko denc jël ko ndànk yóbbu ko France ndax kii fu mu tëdd barabu bu lay doon ay millions yi doomu aadama danañ fa dem te tubaab dafa bëgg lieu touristique tubaab dafa bëgg waxtu wu nekk ngay ñëw ci moom ñaata millions ñooy dem Makka lu leen fa yóbbu hmm. gannaaw farata ji bi si sang bu tedd ba hmm. fu sëriñ tubaab ci kaw suuf ay millions yi doomu aadama danañ fa dem di ko siyaare ci njariñ boobu lañ soxla woon ci Seexu Xadim ba programme ni bu ëllëgee danañ ko jël yóbbu ko suñ suñ borom xamal ko li tubaab yi nas mu tàllal loxoom ñaan yàlla ba ñaan ba yàlla garantir ko ni ko lu yàgg yàgg yàgg jëmmam ju ju génn biir Touba du génn dëkkam bii du génn fii nga xam ne fi lu doon liggéeyee lu ko yàlla may nag ci may yu day jël xalimaam mu jël xalimaam ni akramani bila xuróoji badani min watani bi nafi ahlul hudri teral na ma moom yàlla ci lu dul ñuy jël sama yaram wi di ko génne sama réew bi nafi ahlul mudini ngir njariñal nit ñu weex ña loolu yàlla teral na ma bu am ci kaw suuf bayit woowu moo tee Serigne Touba dem France ni kon daan koo fekk ñoom lu mu wax lu am ba pare la. dëgg la. kon ñu bàyyi ci xel bu baax. dëgg la. li tax ñu koy topp nag mooy la doxam diggante Cheikh Mouhamadou Fadel ak taalibeem ba. Mhm. foofu laay tëjee. dafa am benn taalibeem bu nekkoon Ndakaaru bu liggéeyee bu weer dee daal mu génn dund kër bi lu des rek mu yëg sëñ Fallu da ngaa wéradi. xanaa xam nañ koy nga sàkk addee yóbbu waaye yow boo génnee dépense kër gi lu des ngay sëñ fallu mu ne sëñ fan fallu moo toll noonu ci man oh bi mu demee ba retraité doom ji remplacé ko fa doon liggéey mun ne ko sama doom ni ma doon dundee ak sëñ fallu boo ko mënee ñu wéy boo ko mënu ñu tàggoo tey sëñ fallu ma gën a doom doom ji ne ko loolu bàyyi mën naa ko bu weer dee doom ji ñëw ñu génn rek la dindu kër gi un mois lu des lépp mu yëg sëñ Fall soxlawul bu mu rafet soxlawul dàll soxlawul beneen kër bu muy tam xoolal leneen ba yàlla dogal góor gi génn àdduna hmm. bis bu njëkk bi sëñ lu ñëwu ci doom ji ne ah, xam naa sëñ Fall de ni mel ak sama baay xëy na xataay bis bu njëkk bi la waaye bu amee semaine ci bisu sarax si dana war a ñëw sarax si jot sëñ Fall ñëw yónneewu doom ji ne moom day a wax sama bàyyi lu mu am jox ko sëñ Fallu mu jox ko sëñ Fallu mu génn àddina sëñ Fallu ñëwul yónnee ma ah xëy na daa bëgg a ñu am ñeent fukk guddi sëñ Fallu ah, nag doon taalibe taxut ñàkk fayda lu ma am sama ba sama baay jox na ko sëñ Fallu ak moom lu ma am mu génn àddina ñëwul jaale siwul yónneewul ba nam ñeent guddi nga naa koy xuloo jox sëñ Fallu ci guddi sëñ Fallu woo soxna si aay ne ko bu subaa bu añ ba noppee tibbal ndab bàyyi am na gan buy xuloo suñu borom xamal na ko oh, ñu toog ba yoor yoor bu tàng doom di jégg jub sëñ Fallu sëñ Fallu tàcc ko ne ko wax nga dëgg waay sa baay lu mu am jox na ma ko ba xëytale loo am mu jox ma ko mu génn a ñëw ma jaale si dama lay xamal ne maag sa baay séq ñëwoon jaale jàlla la leen séqoon te jàlla la naa ko yàlla ñu sëriñ Tuubaa jàllale wasalaamaaleykum wa rahmatulah allahumma amin nangu leen ñaan tey wax amin amin ah di nañ ne ku baax baara sow ngi ci kaw